جبود يا الله ويا ما خسر الانس والجنين رسول الله اليكم إني رسول الله masaral insi wal jinni asalaamaaleykum chers de sunu média TV ñi ngi amaan mbégte ak bànneex di leen dalal fii ci Cambérène ci appel cent quarante deuxième bi téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ñi ngi ñëwaat fii nii doon waxtaan ak sunu mbokk yi wàccaay appel bi naka lañ ko dundee naka lañ koy waajalee ak lan lañ ci gis comme tegtal comme ñaan comme tawféex salaamaaleykum sunu média TV n'oubliez surtout pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour di laal actualité à temps réel ñi ngi waat fii nii biir Cambérène ci ay jeunes waa Harlem ñoo xam ne appel bi ñu koy tàmbalee ba tey ñoo ngi fi di séddale ay café ñu nekk ay jeunes yu dynamique ay taalibe yu nekk ci kër gi ñu ngi am mbégte ak bànneex di dalal benn ci ñoom ay ndaw ñu koy wax sang bi chef bi ñu ngi lay ziar waaw sëriñ bi ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax di leen wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen dalal bu baax a baax ci dëkk bu tedd bii ngeen ñëw ñu koy wax Cambérène muy dëkk Seydina Issa rohou laay waaw ñu ngi leen fi dalal jàmm bi wax soyez la bienvenue waaw ñëw ngeen nag ci dëkk bi ngeen war ñëw ndax Seydina Limam moo woote appel fii ngeen ñëw mooy Arlem ku tedd kële Serigne Ousseynou laay moo ko tuddee woon Arlem moo tax tur boobu xëñ na loolu tax yàlla def ci barke bi mu ci def ñun nag ñu nekk ay ndaw dëkk fii ci koñ bi même bu ñëpp nekkul ay laayeen it doo xàmmee ku dul laayeen wala kuy tijaan wala ku ciy murit ñu ànd def une forte délégation def mobilisation bu am solo séddale fi café séddale fi mburu ah joxe fi ay ndox joxe fi ay mouchoir pour gan ñi nga xamante ni nii ñoo ñëw ci woote bi woote bi Seydina Limaamu woote woon pour gan ñi bu ñëwee am satisfaction ba bu ñibbee am luñ mën a yóbbaale ci ci lépp loo xamante ne nii ci lu baax la ndax sénégalais ku ko xam xam ni ci lu baax nga ko xam ku ni culture Sénégal mooy lu rafet ndax bañ nañ ko ba Sénégal réewu teraanga lañ koy wax loolu daal moo nekkoon suñu objectif tey noonu daal la ñu tàmbalee appel bi waaw. bu ko defee nag euh, comme li ngeen gisoon noonu ci suba muy ndekki li moo fi jot a jaar si kanam tuuti am na lu ñuy wax euh, añ incha allahu rabbi dañ defaat geste bu mel noonu su ngoonee it ñu def ko su guddee ñu àndandoo ñu ñëpp dem ci base bi fanaane tagg yéent bi ba set kenn ku nekk ñaanalante demaat yenn yoof ci yoor yoor bi bu jeexee nag ñu ñaanalante ba déwén ak jàmm incha allahu rabbi loolu daal lañ jàpp ni mooy appel bi te ñun ñi ngi ci di ci bay suñu waar grâce à Serigne Ousseynou Laye ndax moom lépp da koo basé woon ci jeunesse bi ñun li ñuy def nii nag du doole kenn ñun ñoo jël suñuy dërëm suñuy fukk ak suñuy juróom dajale ko pour gan ñi nga xamante ni am na ñuy ñëw te ñoo xamante ni xamuñu fi kenn léegi ñun loolu moo tax ñu jël initiative boobu te nit bu xëyee suba war a naan café su dee woorul war na lekk war na def leneen ak leneen moo tax ñu jël ci li nga xam ne moom na ay mu néew mu bëri di ñaan yàlla bon bu déwénee yàlla gën ko yokk waaw mais ci li ñu tàmbalee nii gis ngeen ko yéen waaw jox nañ fi ay café ba presque onze kon def naa ni bu manqué li ci manqué bariwul te matale lépp moom yàlla rek ko man waaw moo tax mais nag bon yàlla bëri na sutura daal ñi ngi ñaan yàlla yàlla gën koo yokku ba bu déwénee xam nga li ñu mën ren ñu mën lu ko ëpp déwén waaw fa tabaarakallaahu yal na yàlla moo tali mën na xam ba xam ren mooy seen édition bu njëkk wala ci ñaata édition ngeen toll déedéet boo dee seet normalement war na am ay quatre édition cinq waaw biñ ko tàmbalee léegi te dañ dañuy ñaan yàlla mu mu mu mu ëpp loolu waaw dañuy dañuy ñaan yàlla mu ëpp loolu waaw biñ ko tàmbalee mel woon ni fële la woon buntu kër Chérif tey dem na ba ëpp ñu doole ba xam ni ci kër gi lañ koy mujjee di ko defee di ko génnee ci mbedd mi dañuy ñaan yàlla ñu dem ba bu di baas fii di ko fi exposé nga xam ni képp ku duggati rek ci xam nga fi entrée la boo ñëwatee nga xam ne buntu ko seen Ousseynou Laye mooy ndékkikaay bi waaw loolu la ñuy ñaan yàlla waaw. ñoom ñuy ñaan yàlla muy yokku ñu ngi leen di koy ñaanal tamit waaw di lay wax nga suñu média ñoo ngi am cant ak ngërëm jërëjëf jëwrin waaw mu nekkoon sang bu Harlem City ba tey ñu ngi fii ci biir Harlem City ak ay taalibe ay soppe yoo xam ne dañuy séddale café yi ba tey ñi ngi amaat suñ beneen jëwrin ñu ngi koy wax Bas Bas Café borom Harlem City ñu ngi lay ziar Laay Maxtaar. Laay Maxtaar laay sanga bi ñoo ngi ziar bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm te ko sàkku ci yéen waaw. waaw ah, alhamdulilah naka wàccaay bi ak waa Harlem. waaw wàccaay yu moom ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax dañ ko pare sax nag waajuñ ñu ko dañ ko pare ndax euh, bés bi du bés bi nga xamante ne bii dañ koy waaj dañ koy pare waaw ndax euh, woote maam bi du woote nen. waaw aji boo daa yàlla yaa masal jinni wal insi inni rasulullahi ilaykum du ay caaxaan waaw ndax ka ka weexoon ci màkk ñul fii taaxum jàmbalaay mi su dee ne moom la màggal bis bi dañ ko war a màggal ci nu mu rafetee pësteef ak ngor ak lépp luñ am rek mën nañ ko cee def ndax bés bi jaral nañu ko waaw ginnaaw bés bi jaral na leen ko ñuy wax euh, waa Harlem City ñan ñoo nekk seen ginnaaw wala ñan ñooy joxe xéewal yi nga xam ne moom la ñuy di jël suba tey ñu ngi leen di gis yéen a ngi séddale ay café sang nee nañu dangeen di waaj joxe añ mën nañ xam ñan ñoo nekk ci affaire yi. waaw sëriñ bi dama la xamal ne la waa Harlem xale bu am dix ans ba ba quarante ñëpp am jom seen ñaq la joxe joxe wu ñu ñaq kenn seenu ñaq la ñu joxe moom laa wax fi léegi rek dañ ko pare. ñëpp ku si ne joxe nga xéewal goo xamante ne bii gan yi moo tax a jóg du puukare du dara nag bés bee laaj loolu waaw te añ yaa ngi ñëw njoganal yaa ngi ñëw te noppeeguñ ci danañ def yeneen euh, berneel yoo xamante ne bi si suuf lay nekk gone yu am jom ñoo fi nekk Harlem City gone yu bëgg seen bopp bëgg dëkk bi te di ko jëfe ndax bés bii pare nañ ko bu yàgg-yàgg waaw ndax nit soo parewul rek doo mënoo def dara pare nañ ko bu yàgg-yàgg ñëpp a joxe seen seen alal ñëpp dix ans ba quarante ans ñëpp a joxe seen alal ngir bés bi jëmmal bés bi waaw ñu daal xale daal moom macha allah waaw. Ah, yàlla na yàlla xeb doole ba tey mu nekkoon wàccaay appel bi fii ci Harlem City. waaw seex bi ñu ngi lay ziar ba Harlem City laay maxtaar ñu ngi delloo ziar bu wér laay maxtaar laay ñu ngi rafetlu bis bi kontaan nañ torop si teewaay bi waaw yàlla na yàlla yokk sutura bi waaw yokk bi ba tele bi li ngeen si li ngeen si njortu yàlla defal leen ko si barki bis bi Mhm. waaw sànq ba ñuy door yow defe naa yow yaa ñu dab jox ñu kafe waaw mu nekk ay kafe yu doy waar yu neex sax macha allah waaw ñu wax wàccaay appel bi nag mu noonu lañ ko waajee. waaw comme ni ñu ko doon waajee rek comme ni ñu ko doon waajee parce que bii mooy suñu septième édition suma juumul waaw ba ñu commencé ni commencé si ay benn saaku tey yàlla dimbali ñu ba ñu ngi siy def ay sept cent kilos ba di ko romb sax di dem kon sant la bis bii nag ñun moom lañ am mooy suñu lépp. luñ si deful rek dañ ko amul waaw dañuy ñaan yàlla mu gën a yokk xéewal yi rek ban ban ban ñu si jublu ñun tamit mu romb si mu romb si waaw waaw allah waaw jaajëf ba tey mu nekkoon waa ak waa Harlem fii ci Cambérène ci wàccaay appel bi ñu ngi lay ziar waaw ba tey mu nekk Libaas Dieye bu Harlem City lay maxtaan ñu ngi lay ziar lay Momadou maa ngi leen di delloo ziar di leen wax dal leen jàmm di leen teeru di leen tatagal ci bis bu màgg bi bàyyi laay waxoon aji boo daaya laa kaay leen ñëw leen dikk leen limaamul mahdiw nag yem yooteem bi yemul ci nit rek bépp buy lépp luy mbindaa foonu yàlla rek da koo woo ci bésam bu màgg bi salaamaaleykum naka wàccaay appel bi nu leen ko dundee ak loo di wax pèlerin yi waaw pèlerin yi ñu ngi leen di wax dal leen jàmm appel bi yaakaar naa ne du tay lañ ko dala woo bi du tay bi mooy cent quarante deuxième anniversaire ñu koy waajal woote Seydina Limaamul Mahdi alay salaam fii ci Arlem nag ñun yàgg nañ di baaxoo di defar ay ndékkeeg affaire yooyu noonu bi mooy sunu cinquième édition ñuy defar ay ndekki di ko jox gan yi lépp pour buñ teelee agsi te amul luñ dugal seen biir ñu mën ko def seen biir ba buñ demee jàmmalaay lépp luñ fa dégg mën a des seen bopp yi. ba tey nga nekk membre euh, ci Arlem City. mën nañ xam ba xam Harlem City euh, mouvement politique la ak lu tax gisuñu ci ay soxna sànq ba tey ay ay góor rek lañuy lañ ci gis. waaw loolu dëgg la ñun doxuñu ci politique ndax dara fëkkuñu kii moo ñu yar Chérif Ousseynou lépp lu góor yàlla daan am moom am na ko. multi milliardaire la woon ñàkkul woon dara te dafa doon wàccee boppam di toog ak ñun di waxtaan ak ñun boo ñëwee ni ko bàyyi dama la soxla sax da lay xëcc. ba wéetoog yow ci rukk wax ak yow li muy wax ak yow nga dem moo tax ñun doxuñu daraay politique dara fëkkuñu mais tamit lépp lu jëm ci intérêt dëkk bi dinañ ci dox ndax lu jëmale dëkk bi kanam mooy sunu mbëbët daal. waaw cant ak njërëm ñaal na la mu nekkoon sunu média TV fii ci Cambérène 2 642e édition appel du mardi. Laye Makhtar ñu ngi delloo ziar Laye Mamadou Makhtar waaw di ñaanal sunu xalifa Serif Mamadou Makhtar Laye yàlla na yàlla guddal fanam ak mboolem xalifa général yu nekk si Sénégal yàlla na yàlla guddal seen fan waaw di ñaanal sunu monsieur le maire bi xama di nouveau monsieur le maire yàlla yokk maanaam liggéey bi mu bëgg a liggéey ci Cambérène yàlla defal ko si lu kawe njortam waaw di wax ni gan yi ñëw si appel bi ñu dalax jàmm waaw fii moom yaa ma gën a xam dal la amul waaw yàqalaate amul dara waaw. kon waa Harlem City ñi ngi wax taalibe ñu ànd ak dal ak yar gën a mën a dalal gan yi mu nekkoon Lamine bu Harlem City naka wàccaay appel bi. waaw appel bi moom ak nin ko waajee. chaque année dañuy maye fii ay euh, ndekki si buntu dëkk bi maanaam gan yi nga xam ne dañuy ñëw suba teel xam nga duñ mën a ndekki seen kër yi xam ñu defal leen ay ndekki ñu ndekki ba suur mën a toog si tànt yi waaw déglu sëriñ bi di wax waaw waaw yaa ma gën a xam loolu ngay wax euh, pèlerin yi ñu dugg ci baas bi déglu sëriñ bi di wax waaw pèlerins yi maa ngi leen di waaw dalal jàmm rek comme sànq ni ma la ko waxee woon dalal jàmm maanaam ñu ñëw déglu sëriñ bi di wax te tamit li gën a am solo li sëriñ bi di wax ba pare di ko jëfee am na si solo bu baax maanaam boo ñëwee si fa nga xam ne da nga fa bëgg a gindee ko ba pare te liñ fay wax après du la jariñ dara doo ko jëfe jarul nga fay toog parce que yoonu diine la l'islam la l'islam moom tànku kanam la am amul tànku ginnaaw waaw ndaxte fooy dem moom gisoo fa yokkute bàyyil waaw mais fooy dem di fa déglu pour yokkute moo tax ngay dem di fa déglu waaw boo demee nag ba mënoo jëfe loolu nga dem feneen quoi xam nga waaw fii moom yokkute rek waaw. waaw lu waay nekk uh, ren ba déwén gisoo ci yokkute bu la neexee nga seeti leneen mu nekkoon Lamine bo Harlem City jërëjëf. waaw ba tey ñu ngi fii ci ci ah, kiise euh, Harlem City ñu ngi ak suñ beneen jëwriñ ñu koy wax Serigne Gaay Laye Makhtar ñu ngi lay ziar. waaw waaw laay laay ñu ngi leen di ziar na jox seen wàccuwaay di wax ni ñu ngi rafetlu thème kii bi bi ngeen def reportage bi di rafetlu parce que di ngeen lu fekk ni ñu ngi si liggéey bi suba ba léegi depuis sept di du di joxe ay ndékki ngir gan yi parce que seen xalimaamu moo ne aaji boo daayee laay yaa man sawal ji ni ini rasululaahi aleykum woo naa nit woo naa jinne kon bis boobu bu jotee amul lu dul ñëw ñu defal leen lu baax waaw loolu daal mooy mbir mi di rafetlu parce que Limaamu Laay neewoon na Limaamu Laay ni njoo ni njool ma njool ma njool ma feeñoon fële moo feeñ fii tey omaro omar far di koy yaaram naan jaama naar ba xeesoon ñuul na koro koro bëgg a naa li ma am di wax boo déggee omar fu diw taal mii nga xam ne moom la ñu tey il est disparu dans les vallées de Badiangara moom la ñuy wax tey Seyna Omar muy Seyna Mandione moom la Seyna Limaamu toogoon fële sa sa yoof ni Omaroo oh Omar far di ko yaaram naan jaama naar ba xeesoon ñuul na boo déggoo Omar mooy Seyna Mandione far mooy yaay ji ma di ko mooy Tamsine di ko wàdd kon Seyna Limaamu li muy wax lépp da nga teg si alxuraan kon tey bis Seyna Limaamu bi foofu noon la mën a demee waaw ñu ngi rafetul nag bu baax gan yi nañ ñëw lépp a ngi fi yaatal yi Seyna Limaamu moo ko gars yi nañ ñëw ñu ngi rafetlu nag bu baax li waaw di leen sant bu baax di leen ñaanal seen yëfu bopp. ba tey ci cent quarante deuxième appel bi ñu ngi Cambérène ba tey ak waa Harlem City Laye Makhtar ñu ngi lay ziar. waaw salaamaaleykum Laye Makhtar ñoo leen di ziar di leen ziar ziar di nuyu partout dans le monde di ñaanal suñu xalifa bi génn àdduna di Serif Abdoulahi Thiaw ibnu Seydina Isa ibnu seydina limaamullahi alayhi salaatu wasalaam yàlla na ko yàlla yokk ay leer te mu taax ñu ci barkeem di ñaanal kii wuutu ko di seydina muhammadu maxtaar lay ibnu seydina manjoon ibnu seydina limaamullahi alayhi salaatu wasalaam yàlla na yen bi af si kawam yàlla na ko yàlla defal jàmm yokk suturam yokk xéwalam mu ëmbaale si njabootu ak lu bayti bi yëpp ëmbaale si ëmbaale si mbooloo mi jullit ko na yen bi af si kawam ba appel bii ñuy dëgmal yàlla bu mu nekk suñu mujjanteelu appel yàlla ko si yàlla defal ndam di ñaanal suñu maire bu bees di dun paate meng yàlla na yen bi oyof si kawam yàlla na tere jàmm ba mu bëgg si dëkk bi yàlla defal ko lu kawe njortam barka bay lay war ma yontu yàlla isa isa ñoo ngi si appel seydina limaamulahi alayhi salaatu wasalaam seydina limaamulahi alayhi salaatu wasalaam dafa woo nit ak ginne dafa woo nit ak ginne isaan ñoo ko koy féete cent quarante deuxième appel de Seydina Limamoulahi alayhi salaatu wasalaam tey la quatre suba la cinq tey Cambérène la gi après ñu dem Ngor ñu dem Xuntaba euh, ñu dem Ngor dama juum ñu dem Ngor suba nag la ñuy dem Yoff quoi suba la ñuy dem Yoff yor yor bi quoi incha allahu rabbi waa tey Cambérène suba Yoff ba tey ñu ngi waat ak waa Harlem City mu nekkoon liñ leen jotoon euh, andil ak waa Harlem City ay jeunes yu nekk au service des Lions depuis tey ci suba ñu nekkoon ci ndekki yi ak dalal gan yi lii lañ leen andi loon ajibo dayala oyama xasaral insi wal yinini rasulullah ilaykum أكثر الإنس والجن